الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen xarit seen am di jàmm seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall ak pasteur Balla Konaté ñoo ñëwaat ak yéen ci émission bi nga xam ne ñi ngi ko lal ci waxtaan wi ñuy tibbee ci téere bu sell bi yàlla sunu borom jox ñu muy bible bi tey jii nag ni mu leen ko waxee sànq maa ngi seq émission bi ak sama doomu ndey Balla Konaté di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant te di dellu di sant yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko pasteur Balla ma bàyyi la nga nuyoo auditeur yi.
jërëjëf pasteur Ahmed ginnaaw bi ñu sante yàlla gërëm ko moom mi ñu may ñu mën a fekkee waxtu yi ba mën a sóobuwaat ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm te di nuyu auditeurs yëpp di ñaan rek yàlla wéyale di wàccee ay xéwalam ci dundu kenn ku nekk ci ñoom jërëjëf pasteur Ahmed.
jërëjëf pasteur Konaté jërëjëf Balla ni ma ko waxee sànq bi may ubbi waxtaan bi dama ne. sunu waxtaan yépp ñu ngi ko lal ci téere bu sell bi nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom jox ngir mu doon làmp bi nga xam ne moom la ñuy niitoo te mooy leeral sunu yoon tey ji nag dañuy ubbi ci kóllëre gu bees gi ubbi ci xaaj bi ñu jagleel waa Rome ndaxte ci kóllëre gu bees gi am na ci bataaxal boo xam ne soob na yàlla sunu borom ñu bind ko jagleel ko waa Rome bataaxal boobu nag la ñuy jàng ndaxte bataaxal boobu ñu jógleel waa Rome dafa am solo trop ndaxte ci biir yàlla sunu borom mi ngi yee ñooñu nga xam ne ñoo doon waa Rome te xamoon nañ ne jamono yooyu Rome moo jiitaloon wala boog moo yilifoon àddina ci kaw seen xam-xam ci kaw seen xarañ ci kaw seen am alal ci kaw li nga xam ne dañ ko daan liggéey jumtukaay yi ñu amoon ak tamit armée yi nga xam ne amoon nañ ko ba mënoon nañ dem fu nekk noot nit ñi ëpp leen doole ñëw jël leen moom leen Rome yilifoon àddina buur ba fa nekkoon yilifoon àddina waa Rome mënoon a dem fu nekk waa Rome xereñoon ba nga xam ne am na yu bees yi nga xam ne indi nañ ko woon ci biir jamono ñépp daan ci jariñoo kon ñu gis ne kon xeet boobu ñooñu kat xeet bu amoon solo la xeet boo xam ne ci dëgg-dëgg wax ak ñoom nekkoon lu am solo ndaxte yilifoon nañu àddina mu soob yàlla sunu boroom nag mu jagleel leen ab bataaxal bataaxal bi nga xam ne mi ngi ci kóllëre gu bees gi ñu dippee ko ci tubaab nouveau testament bu ñu jàngee ci aaya benn jàng ci saar fukk ak juróom benn ba ci fukk ak juróom ñaar lii la bataaxal bi ubbee lii la tàmbalee mi ngi wax foofu ne ndaxte aw ma benn werante ci xibaar bu baax bi may may bi may waare ndax mbirum yàlla la mu lëmboo doole ngir musal képp ku gëm muy yawut ci bu njëkk mbaa di kudul yawut ndaxte xibaar bi day wone nit ñi mën a jub ci kanamu yàlla sukkandiku ci gëm rekk tàmbali ci gëm yem ci ngëm moo tax mbind mi wax ne ku jub ci kaw ngëm di nga dund pasteur Balla bataaxal bi soob na yàlla sunu boroom mu xelal ki nga xam ne moo doon Paul mu bind ko waa Rome Paul di woon ab yahut boo xam ne dem na ba yàlla sunu boroom feeñu ko mu jël dundam jébbal ko Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mu tàmbalee ne kat moom amul benn xaar ma yàlla amul benn xel ñaar nekkat lii nga xam ne mooy bataaxal bu baax bi mooy xibaar bu neex bi muy baaxee waa rom loolu kat ci yàlla la jóge te amul dara lu mu ci rus waaw noonu la tij tijee tijee tijee waxtaan wi
waaw jërëjëf pasteur Ahmed xam nga Paul mii nga tudd ni nitu yàlla la góorug yàlla la am na liggéey yu am solo yoo xam ni yàlla jaare na ci Paul ngir liggéey ko ci dundub doomu aadama yu bari wax nga ko sànq wala junju nga ko mu doon koo xam ne yawut la woon donc mu jóge ci mbooloo moo xam ne diine wu yawut yi lañ doon topp te diine boobu sukkandiku ci jàngale bi nga xam ni moom la yonent yàlla Musa andi moom mu demoon ba doon ci koo xam ne kàngam la ci xam-xamam dafa xarañoon jëm ci diinewu yonent yàlla Musa bu ñuy jàng histoire ñu gis tamit ne ku ci farlu la woon koo xam ne diine boobu jaraloon na ko lu ne ba bés jot wax nga ko sànq pasteur Ahmed yàlla feeñu ko ba am yu mu def ci dundam tey jii mu mën a taxaw ne amul benn werante amul benn sikki sàkk amul lenn lu muy ruus ci yëgle xibaar bu baax bi lu tax ndaxte wóor na ko ne ci yàlla la ko jëlee la muy wax ci yàlla la jóge mu dund ko moom ci boppam li tubaab bi wax mu expérimenté ko moom ci boppam te mu gis ngëneel ak njëriñ yi nga xam ni jural na ko ko ci dundu boppam ba pare nag mu wax ci ñaari mbir pasteur Ahmed mooy ni xibaar bu baax boobu mooy kàttanu yàlla bi nga xam ne ci la borom bi di sukkandiku pour musal doomu aadama yi muy yawut bi ci bu njëkk ak ki dul yawut waaw ma ma dëggal sax li nga wax pasteur Balla ndaxte ci saar fukk ak juróom-ñaar mi ngi wax foofu ne ndaxte xibaar bi day wone ni nit mën a jubee ci kanamu yàlla waaw xam nga sànq ci ni nga tàmbalee waxtaan bi da nga wax ay mbir yu am solo ndax da ñu tuddal ñaari mbooloo yi nga xam ni ñoo tënkoon àddina ci jamono yooyu benn muy yawut yi nga xam ni wax naa leen ni seen diine dañ ko tegoon ci yoonu yonent yàlla Musa donc ñu xam yàlla di ko jéema jaamu ni nga xam ne noonu la yàlla bëggee woon ñu ko koy jaamu ak ñi nga xam ne ñooy waa Rom te ñoom ñu am kàttan am xarañ bi am xam-xam bi waaye xamuñu yàlla yawut yi ñaar ñooñu ñoo fi nekkoon ci tënk mais Paul di wax fii nag ni yàlla benn yoon la am ci benn kàttan lay sukkandiku pour musal yawut yi bu njëkk maanaam ñi nga xam ne gëm nañu ne ñoom am nañu diine yonent yi ci ñoom lañ leen yónni nee na leen loolu yépp peut-être que baax na waaye kàttan bii may yëgle moo leen mën a musal rawatina nag yéen ñi nga xam ni ci waa Rom ngeen bokk te xamu leen yàlla te xam naa ni dinañ ci dellu si ndaxte ñooñu dañu doon jaamu yeneeni mbir pasteur Ahmed.
waaw pasteur Balla bu ñu xoolee ni téere bi ni saar bi ubbeekoo dafa mel ne dafa nuy jund Paul ngi junj foofu doomu aadama yi kat ne xibaar boobu nga xam ne moom lay waare xibaar bu neex boobu nga xam ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo ko indaale xibaar boobu ci yàlla la jóge jógewul ci nit rax ci dolli dafa mel ne dafay junj foofu ne xeet yépp a ci am wàll
waaw pasteur Ahmed wax bi yépp loolu la lenn Paul nee naa leen du woon nit koo xam ne dafa mel ni man maanaam koo xam ne xam-xamam daal soriwul moom dafa jàng diine yawut ba doon ko jàngale daf ko jàngale ba bokkoon ci kuréel ñi nga xam ni ñoo doon saytu diine bi te di ko aar kon xam nga kooku xam na diineem kon bu demee ba ne ko fa ñukk ngir topp leneen nga xam ne wax dëgg yàlla mënuñu ne waa ji ñàkk xam moo ko dab la ko ci dugal lu leer la ci yàlla la ko jole ci yàlla la jóge yàlla def ci dundam ay mbir yu am solo te mu wóor ko ne nag ni loolu pour doomu aadama yépp la pasteur Ahmed
waaw pasteur Balla maa ngi doon wax sànq ne yàlla sunu borom jaaree ko ci Paul dafa mel ne dafa ñuy yeenekat xibaar bu neex bi nga xam ne ci moom la jóge te xibaar boobu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo ko indaale xeet yépp ci bokk wante ñaareel bi Paul mi nga xam ne dafa am ginnaaw Paul mi nga xam ne dafa am fu mu bokk Paul mi nga xam ne dafa am fu mu judd dafa mel ne mi ngi junj foofu nit ñi muy yahuud yi muy waa Rom muy képp kuy doomu aadama ne kat seen digganteeg yàlla du caageenu ay ndono la du caageenu xeet la du caageenu deret la sa digganteeg yàlla sa digganteeg yàlla la rek waaw xam nga pasteur Ahmed ku mel ni man ak yow dañ war a sant yàlla bu baax a baax ndaxte bu doon diggante doomu aadama yi ak yàlla ndono la kon ñun dinañu sànku ndaxte yawut yi ñoo xamoon yàlla yonent yi ci ñoom la ñu wàccoon ñoom ñoo nekkoon ay sëtu Ibrahima bu doon mbir mi doono la kon man ku mel ni ñun ñi fu fu ñu jëm alors que ni leen yàlla sàkkee noonu la ñu sàkkee ni mu leen bëggee noonu la ñu bëggee kon li yàlla bëggoon rek mooy yawut yi doon leer ci jamono ngir mën a wone kattan ak ngëneeluk yàlla yi loolu la Paul di wax fi mbir mi du ndono parce que bu doon ndono day am ñoo xam ne dañ leen ciy génne alors que ñëpp a ci bokk parce que ñëpp a bàkkaar kon bu yàlla di musal doomu aadama yi te yàlla amul par parloo ci moom kon dafa war a andi kattan boo xam ni ñëpp lay ëmb ngir man leen musal pasteur Amet waaw ñaareel bi nga xam ne tëjee na ko saar fukk ak juróom-ñaar bi dafa nekk loo xam ne lu am solo la lu am solo la maanaam dafa mel ne foofu dafa ñuy fàttali li nga xam ne moom moo tënk ngëm li nga xam ne moom moo tax bu ci nit ki tegee tànkam dana mucc te danaa la ko jàngal danaa ko jàngal sunu mbokk auditeurs yi ndaxte fii yàlla sunu boroom ngi wax ne ku jub ci kaw ngëm di nga dund mu ne yahud yi ne waa Rome fàttali leen ne kat am na loo xam ne moom la yàlla di wéyee mooy ngëm mu ne fii ku jub ci kaw ngëm di nga dund ku yàlla jubal ci kaw sa ngëm da nga dund waaw wax boobu mu doon li tubaab naan principe bu am solo waaw pasteur Ahmed xam nga principe bu am solo la te dafa baax yàlla di ñu ko fàttali ndaxte nag bu ñu réeree mbir ni doomu aadama yi muy yawut ya bu njëkk muy léegi li fi ñuy wutee njub mooy ci kaw yi jëf dañu bëgg a jëf-jëf yoo xam ni yàlla da leen ci àtte ni ñu jub waaye yàlla li mu wax ci aaya bi dafa leer amul benn lëndam ci biir dafa ne ku jub ci kaw gëm muy tekki ni ki nga gëm moo lay àtte ni ku jub ndax ngëm bi nga xam ni moom nga wekk ci ci kawam moom alors que loolu nag warul wekku lu dul ci yàlla sunu borom li yàlla bëgg a wax fii mooy ku ma gëm man ba man ma saytu sa ngëm te xam ne amul benn sikki sàkk ni ma ko bëggee noonu nga ko defee fi ma bëgg nga wekk ko fa fa nga ko wekk man ci sama bopp dinaa la àtte ni ku jub pasteur Balla ngëm googu nag du caageenu ngëm gu nekk te danañ ci gën a waxtaan bu ci kanamee wala boog ci émission yi di ñëw wante fii mi ngi ñuy leeralal yaakaar naa mi ngi ñuy leeralal nekkat nit ay jëfam mënul tax mu jub ay jëfam mënul tax mu jot ci yàlla sunu boroom ndaxte jëf mënul matal nit waaw xam nga pasteur Ahmed da dama dama dama dama bég ci loolu nga wax léegi mooy ne nga du question ngëm bu nekk rek xam nga dafa am benn nitu yàlla bu yàlla jaar ci moom ci téere bu sell bi wax ñu aaya bi yàlla di wax ni yow ne nga gëm nga ni yàlla am na baax na waaye seytaane moo la gën a xam ni yàlla am na te xoolal ay jëfam kon ngëm du ne rek nga ne waa non man xam naa ni yàlla am na moo bind asamaan ak suuf ne say say jëf dafa war a wone ni yow gëm nga ni yàlla am na kon ngëm di di yàlla di wax fi wute naa ngëm bi ñuy dégg ci mbedd yi saa su ne non man yàlla laa gëm man xam naa ni yàlla am na déedéet gën na ko xóot gën na ko xóot te dafa am nag foo xam ne comme niñ ko waxee fa nga ko war a wékk parce que boo ko wékkul foofu rek bokkatoo ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla di wut jërëjëf pasteur Balla ñuy jàng ci téere bu sell bi yàlla sunu borom dañuy wax ci aaya benn saar fukk ak juróom ñett mi ngi wax foofu ne sama mer a ngi feeñ ci asamaan wàcc ci nit ñi ndax seen weddi yàlla gépp ak seen jubadi gépp ñoom ñi suul dëgg di topp lu jubadi yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax fii ne kat meram mi ngi feeñ ci doomu aadama yépp mu wax ñu fii lu waral loolu nee na ndax seen weddi nee na dañu weddi yokk ci ne ak seen jubadi gépp ñoom ñi suul dëgg di topp lu jubadi waaw bi Paul jeexalee bi mu bi mu bi mu bi mu bi bi bi mu bindee bataaxal bi ubbee ko loolu dafa ñëw dal ci lii maanaam mi nga waxaat ak doomu aadama yi waaw xam nga li Paul di wax moo mu kàddug yàlla la te yàlla buy wax day wax ak doomu aadama yépp donc déjà nee na ni benn kàttanug yàlla moo am ngir musal doomu aadama yi moo ki nga xam ne yawut la ak ki nga xam ne du yawut kon laaj bi nga xam ne mooy ñëw ci xelu borom xam-xam bi mooy ne mais lan moo tax doomu aadama yépp kii yawut ak ki dul yawut soxla benn kàttan boobu ngir mën a mucc yàlla di ñu wax ne parce que moom dafa mere doomu aadama yépp muy yawut bi ak kidul yawut daf leen mere mais lan moo tax mu mere leen seeni njubadi ak suul bi ñuy suul li nga xam ne mooy dëkk ndaxte nag dëkk pasteur amet dafa dafa neex a xam boo xoolee asamaan si nga xool jaww ji nga xool ñun doomu aadama yi ni ñuy demee di dellu si nga war a xam ne dëgg-dëgg am na ku ñu féete ku ko sàkk ku ko sàkk te seen njubadi loolu moom jarul sax ñu ciy sori ndaxte bu ñu ne gëm nañu yàlla te la ñuy def yépp méngoowul ak bëgg-bëgguk yàlla yu sell yi mais loolu njubadi la njubadi la ki nga xam ne xam na li baax muy laxatu di def lu bon loolu njubadi la kooku jubul kooku jubul ngir mu jub nag il faut mu dellu siwaat ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg a pasteur amee waaw ndax foofu yàlla sunu borom daf ñuy fàttali dafa mel ne ab avertissement bu mu ñuy jox ne ñu kat def leen ndànk ndaxte sama mer mi ngi wàcc ci seen kaw yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ne kat gëm ngeen ma te seen jubadi fës maanaam yéen a ngi naan ma gëm ngeen ma te seen i jëf dëppoowul ak jëfu ki gëm waaw waaw pasteur Ahmed xam nga dafa am loo xam ne nit ñi souvent duñu ci taxaw bu baax dañuy wax bu baax ci mbëggeelug yàlla ci yërmandeeg yàlla te loolu yépp lu baax la dañ ko war di wax ndaxte ci melokaanu yàlla yi la bokk waaye li ñu yàlla di wax ci téere bu sell bi te mu koy fàttali saa su ne mooy ne depuis bi aadama ak awa bàkkaare ba léegi yàlla dafa mere doomu aadama yi ak ku mu ci mënta doon yàlla daf leen mere ndax seeni jëf yu bon yàlla daf leen mere ndax seen jubadi yàlla daf leen mere ndax jaamuwuñu ko ni mu bëggee ñu jaamu ko yàlla daf leen mere ndax te toppuñu ko ni mu bëggee dëgg-dëgg ñu topp ko te mer boobu nag téere bu sell bi daf ñuy wax ni musiba la musiba la kon suñu réflexion yépp suñu xalaat yépp mooy nan lañu war a mën a def ba rucceeku ci meruk yàlla boobu te loolu ni mu mën a amee mooy yàlla atte ñu ni ñu jub te ni mu ñu koy defee mooy ñu wekku ko ci kaw ngëm pasteur Ahmed.
jërëjëf pasteur Balla kon yàlla sunu borom mi ngi artu ñi nga xam ne nee nan kat gëm nañ ko di di di di dox fu ñu nekk naan yàlla yàlla yàlla te seeni jëf wuute ak li yàlla namm ci ki ko gëm kon yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ne loolu kat jàpp na ne doomu aadama yépp ñi ngi wéy ci yoon woowu waaw pasteur Balla kon ñu wéy di jàng li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wax ci téere bu sell bi nga xam ne moom mooy biibal bi ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal bi ñuy jagleel waa Rome ci aaya benn saar ñaar fukk ak benn ba ci ñaar fukk ak ñett foofu yàlla sunu borom di wax ne ndaxte bi ñu xamee yàlla taxul ñu màggal ko ni mu waree mbaa ñu sant ko waaye ñu daldi réer ci seen biir xalaat yu mujjul fenn ba tax seen xol gumba ba lëndëm këruus ñu teg seeni bopp ni boroom xel fekk ñu ñàkk xel lañu woon toxal nañu ndamu yàlla pasteur Balla aaya bi saar bi mi ngi tëjee ci wax bu am solo bi nee na kat doomu aadama jël na li nga xam ne moom la yàlla ndamoo moom la yàlla moom mu toxal ko waaw daf ko toxal waaw daf ko daf ko toxal ndaxte yàlla rek moo yelloo ndam lépp te bu ñuy xool muy ci jamono yooyu muy ci suñu jamono yi pasteur Ahmed mooy ni li yàlla yelloo woon dañu ko jël jox ko mbindeefu yàlla li yàlla moomoon dañu ko randal ba mu agsi ci mindeef bi ñu jox ko ko yàlla nee na ñu ngi teg seen bopp ay nit ñu am xel waaye ñu ñàkk xel lañu ndaxte ñàkk xel munul weesu li nga xam ne dañu ko bind te ñu bind la yow yow nga waroon a delloo ki leen bind yéen ñaan ñëpp ndam nga jël ndam loolu jox ko li nga xam ne dañu ko bind comme yow kon loolu la leen yàlla mere loolu la leen yàlla toppee parce que jaamuwuñu yàlla comme ni ko yàlla bëggee maanaam defuñu ci sellaay bi nga xam ni moom la yàlla bëgg defuñu ci coobare bi nga xam ni moom la yàlla bëgg defuñu ci pas-pas bi nga xam ni moom la yàlla bëgg te yàlla nag dafa am ay standard li tubaab di wax standard c'est-à-dire que yàlla da ngay jël wala nga bax amul ma jël tuuti fii jël tuuti fële yàlla da ngay jël lépp wala nga ba alors nit ñi nag dañu àggul ci standard boobu dañu àggul ci jaamu yàlla ni ko yàlla bëggee dëgg ba xolam bëgg man cee sedd rax ci dolli nag la nga xam ne moom la amoon te xam naa dinañ ci dellu si randale nañ ko jox ko mbindeef ni ñoom pasteur waaw ndax téere bu sell baa ngi ñuy wax yàlla sunu boroom a ngi ñuy wax ci saar ñaar fukk ak juróom ne toxal nañu dëggu yàlla teral fen di màggal ak di jaamu mbindeef ba faaleetuñu aji sax ji foofu yàlla sunu boroom mi ngi dellu di ñu yee ci loo xam ne aa lu lu lu lu doy waar la nee na doomu aadama lan la def nee na dafa jël li nga xam ne yàllaa ko yayoo mu toxal ko bi mu ko toxalee daf ko jox boppam moo tax mu wax fii ci saar bi ne dañu jël dëgg teral fen dañu bàyyi dëgg léegi teral fen fen lañu yëkkati nee na di màggal ak jaamu mbindeef ba faaleetuñu yàlla nee na topp nañu mbindeef ba faaleetuñu yàlla nee na topp nañu mbindeef ba nga xam ne fàtte nañu ne kat ñoom ñépp yàlla seen borom moo leen sàkk te ndam loolu ñu jox mbindeef yàlla rek a ko yayoo waaw pasteur Ahmed muy ci jamono yooyu ah sànq wax nga ko bi ngay bi ngay tàmbali muy ci suñu jamono yi loolu bokk na ci jafe-jafe yu métti yi nga xam ne yàlla am na ko ak doomu aadama yi ndaxte toppootuñu dëgg ndaxte nag dëgg mooy ni yàlla moo ñu moom moo ñu sàkk bépp ndam moom moo ko yelloo te moom lañ ko war a delloo loolu mooy dëgg waaye yàlla mu ne non seulement def toog defatuñu li ma bëggoon ñu def ko waaye jaamu bi nga xam ni sama digganteeg ñoom rek rek rek la war léegi jox nañ ko mbindeef ni ñoom xam nga ni ci jamono yooyu pasteur Ahmed wax nga ko Rome réew mu amoon doole la colonisé réew yu bari ci àddina si presque li ñu xamoon ci àddina si yépp mu colonisé ko ñu dem ba buur bi gis kàttan boobu réewam am gis doole boobu mu am gënoon a fort tey ku mel ni Barack Obama mu dem ba léegi ne moom yàlla la buy romb nit ñi dañ ko war a sujootal di ko di ko di ko jox tur ak yi nga xam ne yàlla sunu borom kese ko moom moo ko moom moo ko moom mu ci kañu di ci ndamu mais kon ñooñu doon def loolu ca jamono yooyu toxal nañu ndamu yàlla jox ko buuru Rom di ko jaamu comme ni ñu war a jaamoo buuru Rom te même boo demee ci yawut ya nga xam ne dañoo xamoon diine yore téere yonent yàlla Musa mais da ngay gis ni jamono dafa dem ba sëriñ su mag si ak ñi nga xam ne ga mooy gàngoor bi ko doon topp gars yi dañ leen doon jox gëdd ak cër boo xam ne dëgg-dëgg xajoowul ci diggante mbindeef ak mbindeef ndaxte yàlla rek moo ko moom yàlla rek moo ko moom donc yàlla gis mbir yooyu mu mer ci lool ndaxte bu ñuy waxante dëgg pasteur Ahmed nit ki ak daraja bu mu mënta am yàlla moo ko ko jox mindeef la comme yow kon respecté ko jox ko cër ci daraja ba nga xam ni yàlla jox na ko ko mais la yàlla moom muy wéetal borom bi muy sujootal yàlla muy jaamu yàlla muy wóolu ak yaakaar yàlla kese loolu delloo ko yàlla ndaxte loolu loo ca fel la rek jox ko mbindeef comme yow yàlla soxlaatu ko pasteur ndaxte li nga wax sax am na solo téere bu sell bi daf ñuy jàngal yàlla sunu borom daf ñuy jàngal nañu kat fii ci biir àdduna am na ñoo xam ne jox naa leen ndomba tànk yëkkati naa leen ñooñu nang leen jox cër yàlla sunu borom bañul nit jox nit cër wante am na cër goo xam ne moom kese ko yelloo kon cër googu moom rek lañ ko war a jox pasteur Balla may leeral foofu ne jamono yooyu sax dafa amoon jafe-jafe ndaxte chrétiens yi ci jamono yooyu dañu nekkoon Rome ñoom dañ doon bañ di def loolu nga xam ne moom la buuru Rome bëggoon maanaam di ko jox loolu nga xam ne teraanga googu nga xam ne yàlla rek moo ko yayoo moo waraloon sax ñu dem ba di leen di jàpp di leen faat di leen dugal ci ci stade yi di jël ay rabu àll yu demee ni que ay gaynde ay segg ñu leen di song di leen rey ñoom nag ñu taxaw fi ñu taxaw ne kat lii nga xam ne moom la ñu buuru rom di laaj duñ ko ko jox noonu waxte loolu yàlla kese ko yelloo kon yàlla sunu borom dañuy fàttali fii kat ne comme ni nga ko waxee woon sànq mbindeef mi dëgg la ne am na loo xam ne yàlla may na ko wante am na loo xam ne moom mbindeef ak mbindeef xajoowuñ ko yàlla sunu borom rek moo ko moom kon pasteur Balla ñu gis foofu ne am na leneen lu ci yàlla lu ci lu ci téere bu sell bi yokk nee na ndaxte nit ñaa ngi def loolu lu mel noonu yàlla sunu borom bërngal na leen waaw yàlla sunu borom kon dana bërngal ñi nga xam ne ñi ngi def yu mel noonu waaw xam nga yàlla dafa bëgg doomu aadama te moo tax mu yónnee ñu yonent yi moo tax mu yónnee ñu borom xam-xam yi moo tax ci mujjantelu jamono mu yónnee ñu Seydina Isa Yesu Krista ngir mu musal ñu waaye artu nag la man yéen a ngi ci yoon bu bon génn leen ci yéen a ngi ci yoon bu bon génn leen ci alors bu nit ñi tëwee ba të c'est normal que yàlla bërgal leen bàyyi leen ak seen sago loolu la téere bu sell bi wax te musiba la yàlla bërgal doomu aadama maanaam bàyyi koog sagoog ne ko léegi daal yaa ngoog loo xam defal loo man defal waaye bés dina ñëw di nga taxaw sama kanam man euh, man borom te gis nga pasteur Ahmed bokk na ci suñu jamono yi li lay wan ni yàlla dafa bërgal doomu aadama yi ñu toxal li nga xam ne mooy dëgg andi fen mais xoolal li xew ci àddina si léegi xoolal li xel fi ay doomu aadama dañuy jóg di xeex pour que góor ak góor mën a sëy te ñu xam ni yàlla da koy tere ay doomu aadama dañuy jóg pour que xale yu góor yi ak xale yu jigéen ñi ñu jox leen ay mbir yoo xam ne dinañ mën a sëy ci seen biir te ëmb du ci jóge mais yàlla bi muy tere terewul ëmb li mu tere mooy sëy diggante ñaar ñoo xam ne néegu sëy boolewu leen du ëmb bi la yàlla tere mais am na ñu taxaw tey di xeex ngir daganal ko non seulement kon ñoom ñu ngi bég ci ñi koy def mais ñu ngi jàppale ñu koy def ñooñu tuxal nañu dëgg bi andi nañu fen bi nit ñu mel noonu nag wax dëgg fa yàlla daf ñuy won rek ni yàlla bërgal na leen te fa ñu jëm buñ seen xel teelul dellu si du baax pasteur Ahmed.
waaw ndax tey téere bu sell bi mi ngi ñuy wax nañu li nga lim léegi nee na bible bee ko wax yàlla sunu borom a ko wax ñu dëggal ko nee na yu mel noonu bu ko nit di dundee danaa ko yónnee ay feebar yoo xam ne du ci génn ba faaw te ñu ngi gis ne léegi ci jamono am na ay feebar yoo xam ne dugg na fi doomu aadama donte xam-xam bi bari na xarañ na mi ngi def kémtalaayu kàttanam mais mënu ko faj te yàlla sunu borom moo ko wax ci téere bu sell bi nee na comme yéen da ngeen ma dummóoyu ba def li ngeen xam ne dama ko aaye man danaa ko fayonteeg yéen danaa yónni ci seen biir ay feebar yoo xam ne doo leen ci génn mukk loolu mooy firndeel ne li ñu def baaxul te yàlla mi ngi koy digaaleeg ñun pasteur Balla dañuy tëjee waxtaan bi ci lii rek nga xam ne moom lañ ko ubbee woon yàlla sunu borom di wax ne ku jub ci kaw ngëm di nga dund ngëm mooy gëm kan
waaw ngëm mooy gëm yàlla sunu borom waaye gëm yàlla sunu borom dafa am ci yoon bu mu tegu te yoon boobu nag du kenn ku dul Seydina Isa Yesu Krista te téere bu sell bii ñu tàmbali tey pasteur Ahmed dina ko leeral ba mu leer nañ yàlla soxlaatul rek nga ne man gëm naa yàlla jàpp naa ci yàlla waaye yàlla dafa soxla ngëm boobu mu yóbbu la ci yoon boo xam ne mooy yoon bu sell bi te yoon bu sell bi mooy Seydina Isa da mi nga xam ne dafa ñëw ni man maay yoon wi maay dëgg gi maay dund gi kenn mënul àgg ci yàlla baay bi te jaaroo ci man pasteur Ahmed jërëjëf pasteur Balla may fàttali ne mbokki auditeurs yi ne yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ne nee na kat su may artu dafa fekk dama bëgg ngeen dellu ginnaaw ngeen dëpp ngeen tuub te ngeen ñëw jot ci li nga xam ne mooy sama yiw li nga xam ne nag moom la ñu jàng ci aaya benn ci bataaxal bi ñu jagal waa Rom lépp liñ ci jàng yàlla sunu borom daf ko wax ngir artuñu ngir delloo ñu waat ci boppam ngir ñu jot ci yoom ndaxte yàlla dafa bëgg doomu aadama bi mu sàkk mbokki auditeurs yi fii la ñuy yemale sunu waxtaanu tey bii nag mooy xaaj bi ñëkk ci waxtaan wi nga xam ne dañ ko jagleel bataaxal boobu nga xam ne moom la yàlla sunu borom yónnee waa Rom ñuy ñaan yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ yàlla na ay yiwam wéy di wàcc ci seen kaw wasalaam Oh
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
إن